dañu doon wote budget commune de Touba 2021 voté nañ ko arrêté ko ci 4 milliards 900 millions loolu nag gannaaw bu ñu defee fii orientation budgétaire bi ci ni ko sart yi waxee wa tëgg budget bi ci techniquement ci investissement ak fonctionnement ba arrêté ko ci 4 milliards 900 moom la ñu doon wate woon tey conseil municipal bi conseil municipal bi daje ñu wate ko à la l'unanimité donc loolu moo waraloon daje mi tey. waaw boo gisee am na tuuti bees ci par rapport ak budget yi ñu daan wate am nañ yaakaar ci ne lool danañ atteindre suñu objectif cette fois-ci ci at mi ndax dafa am benn appui bu am solo boo xam ne dañu ko séenu te intégré ko ci li ci ëpp ñëw na. mooy PACASEN bi ci parti bi nga xam ne war nañ ko see jot deux mille vingt deux mille vingt et deux mille vingt bi dafa ñëw en ret ñëw na deux mille vingt et bi ñu ngi koy séenu bu ñu ko ah, boolee ak li nga xam ne par rapport ak ñaari at yi moom la ñuy recouvrer yaakaar nañ ne dañu atteindre suñu objectif danañu am lu toll ni li ñu wate ci bis bi ci lu dul yenn jafe-jafe. xam nga defe naa ne loolu defe naa ne échappé leen ci débat bi ci débat bi yaakaar na ne gis ngeen ne yëg am nañ parawaar nañ deux cent cinquante millions ci forage yi nga xam ne problème mu manque d'eau bi nga xam ne mi ngi koy am ci màggal ak Touba. parce que sëriñ bi moo joxe ndigal ne commune bi ak maa uramati ak hydraulique ak effort ak administration yi nañu bokk ñoom ñëpp dugal seen loxo ci ndox mi ne ma surtout commune bi na ci dugal loxoom bu baax te jàpp ci loolu moo tax ñu parawaar benn deux cent cinquante millions ngir forage yi ñu man cee ànd ak OFOR ak hydraulique ak maa u rahmati diagnostiquer réellement lan mooy problème mu forage bi lan moo tax pression bi amul lan moo tax forage yi di coupé buñ ko àndee diagnostiquer ko ba xam ne lii la commune bi lim ci man mu yëkkati ko def ko li état bi man mu def ko ci ñu def ko ba nga xam ne pro beneen màggal bu ñëwee yaakaar naa ne lii ñu daloon daaw dootuñu dal loolu yooyu mesure jël nañ ko ci bu wér wàllu sécurité comme li may wax li ci commune bi man rek comme benn commune ci commune ci commune Sénégal yi buy def ay brigade gendarmerie ak post police amul commune Touba fexe na ba am ñaari brigade gendarmerie yoo xam ne da ko loué équipe ko jox ko gendarmerie gendarmerie indi fa ay élément muy ndindi ñoo commune bee ko def Touba Belel commune bi bee ko def police yu guy mbind commune bi moo loué ay loko maanaam équipé ko jox ko police police indi fa ay élément donc mi ngi encore toujours rappeler ministère de l'intérieur pare nañ pour fépp foo xam ne nii yaakaar na ne point la boo xam ne war na am post police commune bi mën na na nañu seet local bu fa commune bi jël réfectionné ko defar ko ba mu dëppoo sarti police maanaam mu équipé ko jox ko police police ban faa yóbbu ay élément ngir mën a renforcer sécurité bi